jàpp nañ ni ay borom garaat lañu fekk man yëg naa ni ñi ànd ak man du ay noonu yëg naa ni gaayaay gaa yu baax yi ñoo ñëw accompagnement asiru ma al abrari xiina asiru wa zanna al ida anni hunaka asiru ustaz Vai dar!